su ma rusutoon mag yi may seetaan wala ma rus xale yu may seetaan konoon dinaa la loon wax ne yow mag bu mun a meew nga eh! bonjour les célibataires meex la wulli wen le la mer dama duggoon halwa way ñona politiciens ni mutun tawzan bu ko tok suñu fit yo ko xamne soko falé intérêt ci dëkk bi du soxal intérêt ci parti am rek la mooy tok suñu soxlé wàccee sen bop te suñu leen falé ñu bëgg a suñu kaw yow time boo soxlee fu ne nga dugg fa di ñaan nit yi suñu leen falé lu ñu njëkk def moo nekk dañu ten sen auto yi sa yu ñu di ñu rek ak pip pip te kula soxla du la gis campagne rek leen leen di gis politique bu mu tax nga ray sa bop ndax kenn ci ñom du la jot dépense te kenn ci ñom du la fajj so février ku talu sa cin jox la garab jarut rey sa bopp politicien yoo xam ne ku nekk sa parti nga fa toogal soo ku nekk su fa toogalee parti am kan moo faa nekkal waa dëkk yéen a ngi falu rek waaye askan bi ñu ngi sona rek nga jënd sa passeport ñu jël fa thirty percent dafa doy enough is enough we are tired paas yooku dunda bu seer yéen a ngi sona seen boppa di sol tiisaati parti di lambar lambar comme ay dof si ñoo xam ne duñ la njëriñ tous su du di la rey ak wax ju bëri ak promise yu ndut musa fulfil man su ma demee ba di sol tiisaat benn tiisaat rek lay sol mooy tiisaat buy protest si intérêt si dëkk bi ma ne we are tired askan bi noo leen dee génne di seen campagne wala nomination yi soo leen ko génnoon taxaw pour seen problème yi kon yëpp faju na man Mohamed Jam moo ma gën a politicien yi ndax lu bon bon bon mu ngi liggéeyloo doomi réew mi di leen fay su weeru jotee mu jënd ay lekk yu donte ne QCell dañ dee sàcc suma crédit man loolu moo tax ma gëm suma xale yi génération bi dañoo feesal sa campagne ak nomination bi ba nga foog ne yaa si nekk fekk kenn amul si voters card Gambia nag dafa am connexion dafa am ñoo xam a wees sa time si gaay yow yaa waaye sa morom yaa ngi muuru si kaw ba si suuf moo tax ma ne la nag dëkk bi dafa bari ay caga yu bugg a boos gannaaw moom moo jël muuteen bi moomale ko internet bi loolu business am la xam naa de sa sañuta am doom loolu de leer na ma xam naa olof ñaay nee lu waaye def boppam génnee sa taat bi dugal ko si internet ragal du ko def risque la te su nekkee bës nga si doon ut am nga ko ndax fii ba yomal xiyam génération bu ñëw dinañ jot si sa vidéo sa muuti bi dina nekk di roter si internet bi for centuries su boobaa nag waa Car association bi di a sa duguru bi si internet bës bi ngay uti nag lu la may tey dina la ko xañ ëllëg génne sa taar si penc du profession seen yi fi western life yooyu noonu téye leen ko ba ngeen tukki du fii oya na on kos wala attaqué la ñi bankoo kan nit soo amatee kilifa rek seetaane nekk sa kilifa gis naa ku doon doxaanante ak benn cepe ay millions di ko spend moom mu dem ba bëgg a takk jigéen bi cepe bi góos ko léegi mu ne sista bi na mu ko fay xaalis bu mu ko doon doxaani kooku fu mu tocc yow doxaan kese nga si joxe ay millions cepe bi tamit am jom di encaissé rek benn toyal ngay joxe muy jël am na ñoo xam ne buudaa jaral na leen lu nekk te nopp du by force sëy kenn du ko forcer nit mbay demal toog dëkk bi nag maa fi commencé gis ay media yu amul programme gaali dof du teer wala sax du teer fu neex mbok yi ndax gis naa dof bu nu taalal Mike mu ne Gambie amul vagin bu góor fa Gambie moom vagin amul ci góor Gambie ni ñu bëri amuñ xalaat lan mooy seen xalaat ñoom laalante ma rusutoon mag yi may seetaan. wala ma rus xale yu may seetaan. konoon dinaa la doon wax ne yow mag bu mun a meew. Eh. ñaaka fay la weesu nga interview nekk muy saaka sa waa réew te toju loolu ba naan. sëb yu dof yi nekk ci comment section bi naan lu wax dëgg xanaa dañ leen ko def. yéen da ngeen te déggu leen wolof. voisine bu góor su bu jigeen waxatuñ ko wax ji nag du ma si sori falaa yem. leen dem ba Sénégal jëli Kounkandé ñëwaat. man foogoon naa ne bàyyi na meew sax. tey la waalo gën a aay. lii la mu wax. bu muy ñëw manam si maison d'arrêt de correction bu dixième bi garde yi dañoo ne maanaam bu kenn laal karaw bi ku ko laal da ngay parce que sama rawaan bi ñëwoon na ko mu amoon benn pétaaw boo xam ne pétaaw xaalis la moo si ne léegi nag euh, chef bi ram ma ne ko ma tuuti ma jël ma génnee pétaaw bi parce que pétaaw bi mbir la dama koy delluwaat fu mu jidoo pétaaw bi si laa jàng lu may jàng mu delluwaat beneen man foogoon naa ne sax kii su génnee jël dina bàyyi wala mu wàññi. waaji bi dafa gën a garaaw ñun ñoo meewut waaye moom mu ngi meew. lii la mag yi naan ndox du bàyyi yoonam. yuuti ji kon seen grades si nii la fa dee demee. some are working hard for it. some a paying for it. and some are coming for it. ñu fay la pour nga dem si université bi jànga pour am kayit yu baax. yow nga ne fa di joxe sa bopp pour kayit. Gambia moom foog na dafa diggaat liggéey jàmbur xale itam ñu ne lu xew. Eh, aujourd'hui <laughs> ñun ñoo xeex waaye ñu ngi xeex la réew mi toog lu si des wax leen seen xalaat si comment section bi your boys back dem na ngeen follow suñu second account foofu leen de suñu video si skit si fii nag yéen xam ngeen pour lan la ñu ngi toog di lekk suñu pepe soup di xaar bem sotti I don't want peace. jamono yi laa gën a reew mbay demal toog jur ngénteem nii la kii biñ koy ngénte biñ koy uufee di ko tudd bi ma ko séy ne muy ragañu imam bi yaa xam ne xale bi bu màggee xale bu rew lay doon yaa